moo xam ñu ne président la moo xam ñu ne waykat la moo xam ñu ne mbër la moo xam xeet yi menoon yëpp mooy ñoo xam nit ñu siiw lañ ba foo taala seen photo rek ëpp ci mbooloo bi nañ leen xam euh, gént leen nag gént yu am solo lay doon ci li ëpp ci ñu koy faral di gént xëy na ay benn benn rek ñoo koy gént muy nekk ay tolof tolof ak ay jafe-jafe waaye gént ko siiw moom baax ci misal yow mi nga xam ne danga nekk ci ay xat-xat gént gis ku siw rawat ne kilifa nga ne kilifa ak diine nga gént gis ko toog ak moom di wax ak moom mu lay ñaanal loolu lu ci ëpp saa bu ko nit ki géntee na yëg ne xat-xat wala jafe-jafe yim nekk bala yàgg mën na cee génn ba tey bu doon koo xam da ngay xëccoo dara nga gént président ñëw sa kër wala nga dem seeti président mu jox la dara loolu it day wane ne li ngay bëgg wala li ngay yaakaar yàlla mën na ko sottal incha allahu rabbi ba tey it koo xam ne da ngay tukki da ngay waaj yoonu tukki ngay xool ba xam gën na wala gënul nga gént ànd ak président bu mënti mooy bu Sénégal wala feneen ñu gént ànd ak moom ci oto wala ci avion lool it dana wane ne tukki boobu tukki bu baax la te boo ci soowoo mën nga cee am lu faw ko sa njort bu dee jigéen la joo xam ne nag nekk gut ci wàllu néegu sëy mu gént gis ku siiw di wax ak moom koo xam ne kilifa ak diine loolu dana wane ne yàlla mën na koo nattoo mu doon koo xam ne dana am boroom kër bu nit ñi di dégg way laa dina doon am doom joo xam ne kuy nit ñi di bàyyi xel la bu baax a baax eh, ba tey it gént gis soxna si président moo gis président daanaka ñooy ndax ñoom ñëpp lu cëb dañuy am benn taxawaay bi dañuy teg tegtale yokkute ak ubbeeku koo xam ne nag dangaa gént gis ko siw mu doon sa borom kër ci gént wa ila mu lay labat bu dee nag dangaa gént ko siw mu lay labat moom baaxut ndax benn dalay tegtale bu dee dangaa nekk ci ngoro boo moyit ay war man na ci am wa ila sëy boobu ngay waaja dugg ak nit mën na am jafe-jafe bu dee nag dangaa gént ko siw nekk sa borom kër moom ci gént loolu it bu dee jigéen la yàlla dina ko may doom joo xam ne ju am barke lay doon waaye doom la joo xam ne yàlla mën na koo defal tawfiq incha rabbi Euh, ba tey koo xam ne dangaa nekk ci ay xat-xat gént nit ku siw seet si la lool it dana waral xat-xat yoo xam ne balaa yàgg mu jeex nga gént président seet si la kër xat-xat yi jeex la ba tey ku nekk ci ay tolof-tolof tamit gént ko siw ñëw di wax ak yow wala gént ko siw mu jox la dara loolu it day wane xat-xat yu jeex lay wane ba koo xam ne dangaa gént président jox la ay document wala ay kayit rek nga yëg lii ay kayit la yoo xam ne président moo ko yëkkati jox la loolu it benn day teg tegtale xibaar yu neex day tegtale yokkute koo xam ne nag dangaa gént gis ne kii nga ci télé la nekk ci tele ci misaal koo xam ne day def tasum xabaar nga gént gis ko di wax ak moom wala toog ak moom loolu lu ci ëpp saa dee am rek day wane nit la koo xam ne ku yàlla dimbal lay doon nit la koo xam ne kuy jàppale ay nit la nit la koo xam ne ku mën a nëbbal nit ñi seeni ayib lay doon wala ku mën a téye li nga xam ne mooy secret ba tey koo xam ne danga gis ab waykat nga ànd ak moom ca pëjum ba di fecc yooyu danay wane ne nit nga koo xam ne sa wàllu diine néew na lool nit ku soññ mu góorgóorlu ci wàllu diineem wala nit koo xam ne dana faral di bëri ay bàkkaar lool ñu koy soññ pour mu dem tuubi ko loolu it nekkul loo xam ne gën na Eh, ba tey koo xam ne danga yëg ne kii diw sàngam la ci gént gi te xam nga ne diw sàngam la mu ñëw sa kër benn wala ci gént ngeen bokk ndey ak baay wala mu wala mu nekk sa mag loolu dalay faral di xeeti gént yooyu nag saa bu am rek yëgal ne nit koo xam ne yàlla def na ci famille boobu barke wala famille boo xam ne yàlla dina dogal kenn ci ñoom dana am ku ñuy dégg lool wante teel nga gis koo xam ne ku siiw la ci gént ngeen bokk dara Eh, ba te it koo xam ne dangaa gént gis ne kii seen imaamu koñ la imaam bi kat ñëpp ko ràññee ci koñ bi nga gént di wax ak moom ci gént lool it ku koy faral di gént baax na waaye danay wane nit ku dénk la mu góor góorgóorlu bu baax lu ajoo ci wàllu diineem wala nit koo xam ne ñu ngi koy góor góorgóorlu mu seet diggante moom ak ñim dëkkandool bu baax di sàmm ak ay dox ci diggante moom ay mbokkam incha allahu rabbi kon mbokk yi mën nañoo jël numéro 78. 443 75 27 78 443 75 27 ñi nga xam ne dañoo ajo wala ajo ci wàllu ay firi gént wala seet wala listixaar incha allah rabbi mën nañ koo jëm bu fekkee nag ñoo xam ne dañuy aajo wala ci firi gént yi dañ koy faral di waxee mooy gént yi moom képp koo xam ne woote nga wala nga yónnee vocal yëgal ni firi gént yi dafa am fay pour nit ñi bàyyi ci xel bu baax ndax faral ñu la yónnee vocal di la ci laaj pour ñi nga xam dañuy firi lu gént incha ne seen yi moom lañ sàkku ci mbokk yi ñu koy baaxoo su amee jot nañ ko déglu tontu la incha allah euh, kon numéro yi mooy 78 443 75 27 ñi nga xam ne aaju woon nañ lu jëm ci aju ci wàll firi gént yi incha allah wala seet wala listixaar bu fekkee nag euh, dangaa gént